asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu euh, gannaaw bu ñu sante borom bi subhaanahu wa taala ñaan ko mu wuutuñu jullil ñu ci yonente yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam suñu wasiila ci yàlla mawlaana saydi ahmad tiyaani radiallahu anhu ñuy wax mbokk jullit yëpp asalaamualeykum wa rahmatullah euh, ñu ngi nekk ci benn téere taiya moo xam ne suñu maam cheikh alxaaj malik comme aadam moo ko def ci soppem mu yont yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam doon taiya boo xam ne nii sëriñ bi nim ko tàmmee def ci xasidaam yi mooy fésal cofeelam ci yonent bi waaye woy yonent bi d'une manière globale nga tiire ci yow ay leçon magnifier cofeelam ci yonent bi seedeel ko àdduna bi yëpp soog a tëj xasiida bi waaye bi yoon daf ko utal xasal bu yaatu comme ni mu defoon fële ci nuun ya riyu zamaan comme ni mu defoon ci laamiya laqad haaja andi ci xasal bi te moom tàmm na buy def xasal jigéen la lay euh, mel ni dafa nekk ak moom après daal ñu am ay problème mu ne ko demal soog a jublu ci yonent bi sallallahu alayhi loolu aaday arab ñooy woye noonu moo tax sëriñ bi ne yaa laytani laytani jiddul xamaqaati duuna ijtilaabin chamillaati almashaqaati qadamtu xayran wa ma min umuri bi dikri awsaafi sucdaa fi laqad shuriftu biha xubban wa ma raximat mashrufaha hakada xaalul gina jaati inni araani dalaalan haa'iman walaha yaa wayxa nafsiya fi tiihi lmahabbaati billahi yaa arabaati alxuuri qulna lana hal fi liqaa'iya sucda min muwaataati in lam takun saarifan rabbi makiidataha amil ilayha gariqan fi dalalaati wa kam yuwarriquni tayfu lxayaali laha musaajilan muuhinan warqa alxamaamaati juudi saxaa saxaa bihi juudi saxaan bihi ridwaanu xaaliqina bilamxatin minka tuxyi bizimaamaati waqad danaytu fala asga ila azalin li anna qaadi alhawa maadi alxusaamaati kuffa alazula wala taxki xadiisahumu inni ashukku li arbaabi almalaamaati wahal waqul lahum garadi ayat isaabatahu sihaamu absara allaami almaxallaati yaa laa'imuuna فعافوا واقبلوا عذري إني المتيم معذور المزل إن المتيم معذور المزلات يلام من قبل الرحمن عذرته وعنه ترفع أقلام السماوات إن التثني لها بان ولحظتها غزالة يعطيان القلب جنات وسحر بابل أدنى من تلفتها هل لا تطيبن يا سعدى بعلاتي لله ربك هل تشقين رح راحمة بالله ربك ربك هل تشفين راحمة ما تودي مما توديعين فؤادي من جراحاتي ألا تدين لمن تجنينه أبدا ويح القتيل العوافي way xalqati lilgawaani walxaridaati tabdayna id usha yowmal yowmal fawqi nuxlatana wa ashcala rasha shayban bisududaati ka annaka alyowma tansayna alcuhuuda lana wa hakada xaalatu lgayni alfatiyaati cahidtu laa tadkurina alcahda way xaki cahidti laa tadkurina al ahd ahda way xaki hël kadaaka da'buki sucdaa kulla saacaati wa kam gadarta bi wacdin qad wasaqtu bihi wa bisa da'buki ixlaafal ixlaafal wucuudaati in kaana da'buka haada daa'iman thiqati falittaxiyaatu minni wassalaamaati qad zaarani dayfu yaa socdaa yuxawwifuni adaacani ra'su maali walbidaacaati wa qad axaalu bi anna dayfa munfaridun wa annahu laysa min ahli liqaamaati qaala lii bacdamaa jeyshun sayalxaqunaa walastu awsaafu walastu uusafu awsaafa intiqaalaati ناجاني الضيف سرا إذ يناصحني بأن أصرف أفكار الخطورات إلى الذي كان يرضي الله من عمل ليقتفي سنة السمح سجيات هو المناصح ما في نصحه تهم يا ليته جاءنا قبل الخسارات أرجو تلافي ربي بالمكلم من masraahu shaafi'unaa xayrul wasiilaati muhammadun xayru mabcuuthin xawa xawaa sharafan baabul ilaahi li maadil xalqi wal aati suñu maam Cheikh Al Hadj Malick comme Adam def na fi xasal bu gudd mel ni kuy xuloog benn jigéen bu ñuy wax Soxda fekk na dafay ut rek bunt pour way ne yàlla te ni aka neexoon laytani ak neexoon man Maodo jiddul xamaqaati maanaam li ñuy tudd la force de la foli te muy jeunesse nga xam ne ndaw ngay doon amee nga force mais généralement doo ko dugal fa mu dugg dangay ngay dem a dem ba ñàkk nag force bi naan ak neexoon bu ma nekkoon ndaw ma def lii ak neexoon bu ma nekkoon ndaw ma def lii te ñoom moom tàmm na góor gi ci ay wayam mel ni kuy rëccu paasem te xam nga ne téere yi ngay jàng yëpp moom ci paasam la ko def hmm? ndax abada buruq bi mu koy def amul 30 ans presque gis nga laamiya bi mu ngi mettit lu euh, mu ajeegul ba tey te moom à l'âge de 33 la aji xam nga kon kooku ndaw googu muy jàmbat moom daanaka ci la nekkoon de zéro à a à quatorze ans walo la ko def la ca des mu dem defi ko jolof yeggali alquraanam dellu si bi mu laataam ñaar fukkeet wala ñaar fukkeet ak dara fekk na wàcc na alquraan commencé dal xam-xam di wër daara yi de de vingt à trente mu ko wër tabaarakallahu daara yi euh, après installé ndar marié fa dem màkk loolu la def mais gis nga toujours dafay rëccu ndawam euh, te loolu lal moo koy jur maanaam maanaam grandeur spirituel bi mu mujjee am ci dundam par rapport ak fa mu toll woon benn gab bu rëy moo fay am kon nit yàlla buy rëccu paaseem bul foog ne ay bakaar la defoon mu déedéet fi mu toll tey ak foofu xaw naa mel ni ay bàkkaar ci moom moo tax toujours mu naan madad dahr wal ayaamu moo tax loolu nag lay rëccu mu ne grand maanaam force boobu mu amee woon ci ndaw nga xam ne da daan def marché mu ne duuna tilaabin aka neexoon mu yées sama xëcc chimil chimillaatil mashaqaat yi way làmbooy coono maanaam coono yi ma daan daj ci ndaw ak neexoon yooyu ñu indilaatal ma ko xaddamtu ma jiital ci xayran lu baax wa ma dayaatu ak neexoon ma bañ a sànk min umur yi ci sama dund ci lan nga sànkee sa dund mu ne bi ci fàttaliku gi ma daan fàttaliku ci jamonoy ndaw aw saafa soda ay melokaanu soda ndaw suñuy wax soxda fil maqaamaati ci ay barab toog rek naan noo sama ndaw si lii sama ndaw si lii loolu ba tey am na ñoo xam ne buñ ko déggee Seydi Hadj Malick imagination la ci moom waaye ñoom réalité la ci ñoom ndax ki nga xam ne fi mu amee vingt ans ba moom daal bi muy xam ne mu ngi jëm mag mooy bi mu weexee tal ak bi jaaw mu ne ah man nag war naa xoolaat sama bopp xoolaat sama bopp ba dem ci ku baax jëb jëbalu fa wala tuub fa kooku buy fàttaliku anay ndawam effectivement dina jooy jooy yu metti ndax def na yoo xam ne nii bu ko yàlla baalul mari d'Italie waaye sëriñ bi moom ci imagination rek la dellu mu ne jamono yi nga xam ne nii laqad shuriftu dañ ma soppaloo bihaa ci moom maanaam du moom moo ko sopp waaye dañ ko ko soppaloo mooy nattu xubban ci cofeel moom itam dafa mel ni wama rahimat yërëmul mashrufaha ki ko sopp ndax jigéen bu la góor toppee war nga xam ne toppeew la nen na lu dul coobare yàlla subhanahu wa taala ñaata sa moroomu jigéen ñoo fi nekk xëy na am na ñoo xam sax ñoo la dàq fuuf waaye yàlla jël cofeelam def ko ci waa ji mu topp ngay per njaayu du dem ak ñëw faale woo waa ji mu ne hakaza sëriñ bi nee na nii kat xaalul xina jaat yi ñiy per njaayu ci jigéen ñi mooy di sagu noonu lañuy mel mu ne inni araani man danga may gis sax bu ma demee ci moom ak cofe gi sopp gi ma ko sopp da ngay foog ne ha iman maanaam dama riir ba pare ha iman maanaam dama gëlëm wali han dama jàq ngir bu ma nekkeek moom am na koo xam ne mën naa mer waaye bu gisee ndaw sa rek addunaam yëpp tukki wala yaa way xanafsi maa ngi woo sama toskarek bakkan te moom bakkanam du toskare mukk fii tiihil mahabbaat yi ci ngëlamuk cofeel gi ma nekkee ci soda dama ko bëgg bëgg ba xamatuma lu may def billahi maa ngi giñ ci yàlla te lu jaral nit ngiñ loolu for na ci moom yaa arabaatil xuur yéen jigéen ñi nga xam ne daanaka da mel ni dangeen ñuul ay bët yéen jigéen ñi nga xam ne da mel da ñuul kukk ci ay bët xul na naa muy jigéen ñi xul na la naa ñooma ne hal fii liqaa yi ndax mën naa nekk maag soxda min muwaataati est-ce que mën naa am rendez ak soxda maanaam da koo bëgg lool dajeeg moroomu jigéen ñi góor dinay def bu bëggee jigéen day dem ci ay xaritam ña vraiment est-ce que doon ma utal rendez-vous ndey rek ñu xool fu ñuy daje ñu koy ree noonu lam takun boo nekkul moom daal xool na xool gis na ne fragile na trop ci ndaw si moom Soxda xamul nu muy def mu ñaan ñaan nga Sayyiduna Yuusuf ñaanoon euh, euh, rabbi <coughs> rabbi sijnu ahabu ilayya mimma yad'unani mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaydahum asbu ilayhinna yàlla jigéen ñi ñu ma topp ngir bëgg ma sàkku waaye boo doxul sama digganteeg ñoom mën naa xëy xëy rek dérouté ndax nul n'est prophète euh, léegi yàlla doxal sama digganteek moom te un prophète mooy wax loolu kat un prophète mooy wax ne wa in lam tasrif anni boo doxul sama digganteeg ñoom ba suppi leen ci ñoom asbu na dinaa sopp dinaa leen sopp ba dem ci seen biir seen fiir googu ñu ma fiir dana dana ma jàpp euh, te boobaa dara du ko jarati moom la mam Seydil Hadj Malick ñaanat ne in lam takun yàlla boo nekkul saarifan di di soppi rabbi makidataha pexe ñii amil ilayha dinaa jàng jëm ci ñoom xariqan ndax lap fi dalalaati ci riir xam naa ñaan gi nit war na koy faral di ñaan muy bayit euh, yàlla yàlla nag ma sorel ak jigéen ñi ndax itam njàmbaar àggu fa mu ne wakkam yu war riqu nii bari na fu may fokloo foog waxu olof la boo xam ne mooy veiller veiller dans la nuit nit koo xam ne ay nelawam dafa jeex dafa am nii nga xam ne nii tëdd na tëdd tëdd mënula tëdd mu jóg jaabante dem sangu ji def lu ne tëddaat dara guddi gi mel ni fukki fan ci moom loolu généralement dafam lu koy indi benn xalaat bu la ëpp doole mbaa benn cofeel gu la ëpp doole wala yu mel noonu sëriñ bi nee nag cofeel gi mu soppa soda te soda du kenn ku dul yonte yàlla muhammad kat moo tax mu ne wakam yu warriqu nii bari na bu may fokloo tayful xayaali imagination wu jëmmam am bu ma tëddee bay waa jàppanteeg nelaw rek bu ma ko xalaatee samay nelaw mel ni dañ koo raxas laha musaa jilan may waxtaananteeg moom ngombalanteeg moom mu hinan mu may niroleeg warqul xamaamaat te loolu waxoon na ko fële ci abada buruk yaaru balaylin bittu saamira an qadin mutas euh, jaawiban mutasajilaatil xamaam yi euh, noonu mu may def may imagine loolu euh, bari moo may xañ ay nelaw waaye yow nag xanaa yàlla yërëm nga ma ci ni ma man sonn naa torop juudi yow soxdaa na nga tabe saxaa an cig tabe boo xam ne bii nekk na ci ridwaanu xaaliqina ngërëmal yàlla maanaam ngir yàlla liñ naan ngir yàlla ngir yàlla recevoir ma recevoir ma sonn naa torop pour nga jox ma rendez-vous nga bañ mais recevoir ma bilam xatin donte sax ci benn minute la rek benn gende ko min ki bu jógee ci yow nga xam ne tux yii dina dundal bi dimaamaati ci samay kólle rek yow maa ngi nii rek toppaloo pour nga utal ma rendez-vous donte une minute la wala cinq minutes ma gis la rek sama xol dundaat euh, ma dellu ngir ngir rek ngërëmal yàlla ngir yàlla daal waqad dananti yow yaa ngi nii da nga da nga nay fala usri wala boog waqad danantu man nay naa ba sama xol dama koo tëj ba xajalatuma ci kenn fala usri maa ngi nii dégloo déglootuma ila asalin ci kenn ku may yedd dégluwuma kenn li anna qaadil ndax kii dogal cofel mu yàlla subhanahu wa ak maanaam ay xeetu cofel yu foor maadil xusaamaati aji wëy ci sama xol ba mel ni wëyug jaasi jaasi gu ñaw lool muy alxusaam bu rombee boppu nit te mu ñaw loolu bu rombe boppu noon nan lay def bopp bi dagg teg ko fële mu ne man itam ni ma sopp ni ma la soppee yow soxda xaw naa mel ni jaasi joo xam ne dañ koo ñawala ñawala ñawal ba mu jéggi dayo moom nag mooy sembate sama xol bi xanaa nag comme man sopp naa la ba àgg foofu waa recevoir ma ñu jékki-jékki rek benn waay taxawee na le arab yi dañuy waxe noonu waaye yow eh bàyyil kii waay li jaru ko ah waaw kii ni mu ni nga ko soppee faalew la waay bàyyi ko waay nee si xaj ma gëstu kooku ne ku nanga dal na nga fegu al azul yow mi may yedd wala tuxki bul nettali xadiisahumu seeni waxtaan euh, ndax inni ashukku maanaam man du ma la wax sama mbira ah. ndax xaw ma ndax danga danga ñu infiltrer pour yóbbu sama secret wala déet inni man ashukku maa ngi sikk sàkk maa ngi am dut li arbaabil malaamaati ci ñi may yedd yow kay ki bëggul lu dul dara yow ba à la place de yedd gi nga koy yedd boo ko bëggee dimbali nooy def da ngay réconcilier digganteem ak ki mu sopp moom la ñu nettali woon dafa am benn sëy mu amoon ay jafe-jafe ndaw si dem olu papam ak ndijaayam pour ñu waxtaan ak jëkkër ji xamaa naa daf ko dóor dóor yu metti paa bi ñëw mer nekk fa jël ay décision lu ne mu wax ko ci lu metti wax ji daal gudd gàtt mooy dafa bëgg a tas sëy bi bi mu bi mu leeree ndaw si ne nag dafa nar a tas sëy bi mu ne salaamaaleykum may leen ma kàddu mu ne ko papa yow nijaay bi ma leen di woolu pour ngeen ñëw oolu ma leen woon pour ngeen tas sama sëy man bëgguma ci àdduna ku dul kii damaa bëgg diggante bi daal nu mu rafetee rek <laughs> ba ñu mel nañ meloon mais yow andiwuma la fii pour ngay tas sama sëy góor gi dafa ruus ba xamatul lu muy def nit ki mu bëgg nga deene da kay koy tàggaleeg moom loolu du njàmbaar dug njàmbaar xam nga nooy def da ngay fexe noo leen réconcilier moo tax mariage kuñ fa woo naan defaral diggante bi yàlla nee na wa solxu xayr réconciliation moo gën tous les situations lu metti metti doonte dóor na ko sax ba deret di nàcc waxtaan leen rek ba jubóo ñoom nag ña doon sëy buñ demee ba bëggatuñu sëy ñoom ñooy waxal loolu seen bopp waaye damay tas sëy bi loolu am na ku ko waxoon nekk boo tasee sëy bi ma tas sa sëy <laughs> xam nga loolu loolu metti na moo tax si xaj maa ne yow mi yeddaate vraiment man damay dutewu sax ci sa crédibilité wa qul wax leen ne xarad yi maanaam sama bëgg-bëgg ayat lottal na isaabatuhu ak dalam seen ci haama absara maanaam man li may visé li ma visé sama vision moo gën a sax moo ëpp cible Euh, fettkat bi nga xam ne ab sara maanaam ab dànn la allaamal mahallaat yi te xam barab bi muy jam waa ji nga xam ne nii bu amee fettam xool cible am doon ab dànn maanaam benn génie la boo xam ne bu xësee sànn fitt bi rek lu mu métti métti ci point de sible bi lay dal nee na kooku li muy maîtriser maîtriser loolu professionnellement man Seydi Hadj Malick maa ko gën a maîtriser loolu ci samay wax ak sama cofeel kon man yàquma ko kon yéen yàllaa imuna yéen ñi yeddaangi yeddaate fa afu jégal leen ma rek jégal leen ma waqbalu te ngeen nangu uzur yi sama excuse sama ngant ndax innal mu tayyama ku sopp ba xamatul fu mu nekk mazuural mazallaati dañ koy jéggal ay faux loolu baat bii rek waroon na doon benn proverbe bu nit ñi war a mokkal nit lu mu sopp ba jeex ci faux pas yam cay def dañ ko koy jéggal ndax duwoon la mu bëgg kon kooku kenn waru koo yedd yulaamu man qablu min yulaamu min qibali rahmani yow yaa ngi yeddawu benn waay ci te moom li nga koy yedde mu ngi jóge ci yàlla mën naa daj ci moom hmm? xam nga nit koo xam ne dafa juddoo ak laago nga koy yedda lu tax nga laago xam nga loolu danga nga koy hmm? moo tax mu ne man li ma dal ci cofel ci yàlla la jóge wa anhu turfau aklaamu samawaatu te ci yàlla moomu euh, xalima yi nga xam ne mooy bind destin yi bind nañ koo pare kon man manuma manatuma ci dara inna tasanni laha baanaan waaye daal li ma la mën a xamal ak loo mën a bàyyi bàyyi yedd gi ndaw si neexu la nekkal <laughs> ndax ndaw si waroon na ko dimbali inna tisanni moom wan ma gannaaw lahaa ba baanat moom feeñ na wan gi wan gannaaw moom effectivement feeñ na walax zatuha waaye bu ma maroon sax bu gestoo rek bu bu ma xoolee day mel ni xazalatun ak kéwél euh, xam nga arab buy tagg jigéen ci vision bu rafet maanaam ci xoolin bu rafet dafa koy nirale kéwél xam nga jigéen dafa bokk ñoom ci seen taar ba ren ñii dem ci salon yëpp da ngay gis ñuy monte ay xef kéwél nag kéwél moom ay xef xefam dafa gudd da ngay gis buñ monte xef yi ba pare dañ koy dañ koy crayon ba mu ñuul wala ñu tusngal ko euh, kéwél noonu la mel maanaam euh, yéen yi maanaam xef yi dafa gudd ba pare dafa ñuul kuk moom foo ko gis day mel ni dafa tusngalu moom moom lañuy wax gazel euh, li nekk ci bët bi ci biir bi dafa ñuul kuk mooy li ciy ñuul li weex weex tal ba pare bët bi yaatu arab nag buy nettali jigéen bu rafet bët nga xam ne rafet raf maanaam taar bët daf koy génne jigéen bu am bët lay lay nettali maanaam yéen yi gudd lool afwan maanaam xef yi ba pare mu tusngal ko ba bu la xoolee ronni la rek nga dee loolu la lay wax ne ñoom nee na ñaari fett moo am mooy fett bi nga xam ne jàmbaar ku am quarante cinq ans wala quarante ans entraîné ba jàpp di góor bu la ko sànnee bu jamee sa dënn da ngay dee waaye itam xale xale bu jigéen bu am vingt ans wala vingt cinq ans moom itam bu la xoolee rek nee nañ vision boobu wala regard boobu moo gën a gaaw a jam sax fitt bale ndax bu la xoolee dooy dégg konaan naan oh, xale bi daf ma xool rek ma daanu dee ah, xam nga daanu woo dee waaye euh, jàpp na la moo tax mu ne wala zatuha gendekoom regardam moom ndaw si gazalatun dafa mel ni benn gazel nga xam ne yoxtiyaani buñ ma xoolee buñ jubloo ci man xool ma dañuy jox alqalba sama xol mel ni rek jannaat yi glace day mel ni glace àjjana am sama xol day sedd lool ndaw si moo dax njibar njibarkat yi parce que léeg góor topp jigéen nga naan est-ce que liggéeyu ko kenn liggéeyu ko coobare yàlla rek cofeel fu mu dugg da ngay foog ne liggéey la moo tax sëriñ bi ne wa sixru baa bi la gis nga euh, euh, maanaam njibar gi nekkoon Babylone te yàlla wax ko ci suuratu baqara euh, ci mbiru Suleymaan nee na àdduna mu gën a jege maanaam njibarkat yu mag yooyu fa nekk nga xam ne loo résistant résistant bu ñu la njibaree doo xamati foo ne te ñu nga baabil ak fu ñu mën a ci àdduna bi xam naa léegi baabil bi njibaru baabil bi mu ngi toxu Inde wala waaye benn benn barab la nee na àdduna li muy foor foor njibar googu moo gën a tuuti min talafutiha ci ndaw si bu la gessoo maanaam bu la gessoo ba xool la nii ronni la ak bëtam yu rafet yooyu non njibar nañ la dangay daanu ci suuf xanaa ndaw si kon kiiman la euh, halla tuti biina yaa soda bi illaati mu mel ni nag dafa dafa ne naa takk rek sama xol dem wax ak moom nag waaw janoog moom nag nekk ko halla tuti biina waa yow ndax soda moo lay wan ne phase baa ngi euh, phase baa ngi changé ndax comme moom audience rek la bëggoon wane ne bu la xoolee rek nga daanu xam nga bu demee ba xaw a mer ma naa dem rek wax ko lii dëgg gi hmm? defe ngi évoluer mu ne mu ñëw ci moom ne xalaa tuti bii na waaw ndax yow mënoo teey yaa soda e, tatib bii na manoo manoo faj bokk yaa soda bi illaat yi ci samay jàngoro yow soda kay faj ma sama xol bi mu ngi dagg ngir yow bu ma la xoolee sama àdduna yëpp tukki mu ngi koy yeddkat naan billaahi maa ngi lay ñaan ci barke yàlla rabbika mi mii sa borom waaw xanaa hal tashfiina mënoo faj raximatan ku lay di ma yërëm xanaa bokk bu dul sax dara cofel nga yërëm ma sax maa ngi nii maa ngi wow koŋ ngir soppe gu ma la sopp gu ma xanaa doo doo maanaam doo faj ngir yërëm ma li nga xam ne nii dénk nga ko fu aadi sama xol min jaraaxaat yi ci ay jam-jam yow boo ma xoolee rek mu mel ni paaka buñ ma dëbb waaw léegi koo jam jamati ka jamati ka xanaa à la waroo mën a ñëw taxaw faj ka yow hmm? xam nga faj gi nga koy faj du ndam ci yow parce que yaa ko jam waaw léegi comme yow euh, euh, jam nga sama xol ay yoon euh, faj ma nag alaa tuddiina li man tëj nii na li man tëj nii na abadan xanaa doo faj waa joo xam ne yow yow yaa ko tooñ ay yoon jam ko a ah, boo ko faju lan mooy mujjee deret jaa ngi tuuru rek dafay de mu ne kon way xalqatiili woo na ku ñu nar a rey alxawaani ci ay jigéen wal xaridaati ak ay ay ay jongoma arab yi dañ daan tuddee les martyrs de la passion nga xam ne dañuy sopp jigéen di di ko di ko di ko imaginer di ko imaginer ba jaare fa dee ay martyrs lañu mais shahidul hawa lañ lañ koy tuddee mu ne yow itam boo ma deful noonu foofu rek ngay mujjeg man mu ne euh, tubdiina id usha yowma alfarqi naxlatuna wa ashcala rasu shayban bi sududaati yow kat yaa ngi nii di feeñal euh, id usha jamono ji nga xam ne nii jamono ji nga xam ne nii yaa ngi mel ni am tàgg tàgg boo xam ne nii fawqa naxlatinaa mu ngi nekk ci suñu kaw maanaam suñu kaw garabi tàndarma garabu tàndarma benn picc boo xam ne ca la nekk tàgg fa am fa ay doom dina la may jàmm day sab rek fu mu toll yaa ngi feeñal booy tàgg lu mel noonu ma lay sopp jotuma ci yow wa ash'ala dem na nag ba takk na ar rësu sama bopp seyban ay bijjaaw maanaam man maa ngi lay sopp boobu jeune la di la xaar di la xaar ba léegi maa ngi nii bijjaaw naa bi sududaati nga nekk rek ci wan ma gannaaw ka an na ki dafa mel ni al yow ma tey tan seyna al uhuda danga nga fàtte kóllëre yi nga xam ne doxoon na lanaa suñu diggante nit dafa war a doon ku reconnaissante waaye yow amoo reconnaissance benn yoon wa hakada nii nag ma la ko waxee xaalatul riidi mooy melokaanu xale yu jigéen ñi alfatiyaati jeune fii yi jigéen sax bu age loo ko wax dana ko nangu waaye xale bu jigéen bu ndaw toll ci digg jamonoom kooku du ànd ak xam ne nii mu ngi weex tal bi jaaw danaa noo paa bi daf may tardel waaye bu dul woon dara sax nga xool fi ñu jaar hmm? waa ji dafa am benn xale bu jigéen bu ndaw ke eh, eh, mu ngi am cinq ans huit ans ñu ne ko may nañ la ko takkal nañ la ci morsa ah ndaw si di màgg waa ji di dépassé rek ndaw si di màgg paa bi di màgget ndaw si di màgg paa bi di màgget mais nag moo koy dépensé lépp lépp ba mu demee daal ba toll ci doon jànq kaar mel ni xale yu jigéen yi war a mel rafet lool ndax dafa am ab toppatoo paa ba benn bés ñëw fa nag di ko wax bon datu mariage bi kañ la ñoo ak yan modalité lañ koy def ak ndaw si rek man mu am sama nijaay rek man si xuma yow ay mariage mu ne ko noonu cest à yow mayoon nañ ma la bu yàgg xanaa officialiser mu ne ko may ga mooy daj man soxloo ma mag mu toll ni yow nga xam ne nangam nangam wax ko loo xam ne góor gi cardiaque la fa jëlee cardiaque mu ne moom daal ay moroom lay wuti ji euh, ñu xam nga kooku ku ko mën a weddi loo nekk jigéen ñi am nañ reconnaissance ku ko mën a gëmloo loolu manul nekk du dëgg looloo tax si xaj Maalik wax na ko ci ay xasida yu bari seen manque de reconnaissance loolu kéemaan la mu ne ahidti yow yaa kóllëranteeg man ne laa tazkurina al ahda ne doo fàttaliku mukk relation bi dox suñu diggante yow daal dafa mel ni da nga yow da nga kóllëranteeg man démb mais tey jii nga mel ni ku ma masula xam te lu ma xam joxoon naa la ko lu ma am joxoon naa la ko lu ma xam waxoon naa la ko way xekki moo maa oote maa oo oo toskare wala sa yërmande waaw xël ndax yow kazalika nii rek ngay mel li waaj ba kañ nii rek kazalika ndax nii ngay mel dë bukki sa aada soxdaa yow soxdaa kulla saati jamono ju ne ndax nii rek nga nar a continuer foo ma xamee ba jekka rek bàyyi ma fa wa kam xadarti bari na loo ma wor yow soxda bi waadin ci ay promesse yoo xam ne xat wasiqtu bihi wasiqti bihi dëggaloon nga ko maanaam toog nga wax ma ay wax jure ne lii di ko def mais bi ñu demee ba ci cëppaandaw gi nga mel ni ma soo ma xam loolu ay yoon nga ko def loolu nag mooy àdduna àdduna da nga koy toppa di daw rek moo tax soxda mook àdduna ñoo bokk atte wa bi si ñaaw na ñaaw na torop torop de bukki sa aada bu dee lii de mooy doon sa aada mooy koo jekku rek dóor ko martu dem ñaaw na ixlaafal wuudaati di maanaam di ñàkk sàmm kóllëre ñaaw na torop in kaana de bukki haada bu dee nag lii mooy sa aada daa iman siqat yi léegi kon jàmm ak ah, ndax yow it moomoo nit ñi gis nga sëñ mu ngi def taxallus mu ngi bëgg génn ci soxda euh, mu ne bu dee nii daal na nara nar ak man loo ma wax génn ci loo ma wax doo ko def léegi fal yi ñeel na ma attaxiyaatu ak nuyoo min nii ci man wasalaamaati ak jàmmoo demal daal ma dem euh, génn na ci soda mu ne xad zaara nii ziar na ma ak day fu gan euh, mel ni soxdaa dana ko ah yow mënoo ma muñ yow mënoo ma muñ xamoo ku dul man mu ne non damaa gis keneen moo tax damaa gis keneen qad zaarani daf ma ziyaara ad dayfu gan yaa soda yu xawwifi yu xawwifu nii deer kooku moo ma intimidé moo ma tiital ata mooy lan muy idaat ati sànk gi ma sànku sànk rë su maali maanaam moom li ko gane mooy lan benn benn benn benn benn idée moo ko gane dafa tëdd guddi idée bi gane ko ne waaw yow lii ba kaña da topp koo xam ne nii gëmu bëggula la sopp la te yaa ngi nii li gënoon a cher ci sa dund mooy de de zéro de zéro wala de dix à à à cinquante ans mu ngi nii dem na ci ci ci yow sa dund à la kon bu xëy mi rafetul ngontali na rafet gan googu nag moo ko gane si jox ko idée boobu muy ati sànq gi ma sànq rë sumaali sama capitalu dund wal bidaati ak marchandise bi amee marchandise jëm ci banque ba lépp fa trente millions euh, jaaraat feneen ak feneen teg ci cinq million jënd lépp marchandise léegi ñëw chargé sa boutique sa doomu bàjjen yeeg sa doomu baay yeeg xale jigéen ñëpp ñëw fa waaw diw kay léegi tekki na yow est-ce que tekki nga ngay jël marchandise bi may rek ku ne nga defal ko benn mbuus naan kaa non xeeb naa ko tonton xeeb li lii euh, bàjjen xeeb naa ma sœur naa lii di joxe di joxe ba banque bi nag date ba mu la joxoon pour nga war a rembourser affaire bi mu jot bi ñu évaluer boutique bi yëpp quatre cent cinquante mille moo ci des yow amoo problème ah yow yow amoo bénéfice te fond de roulement ba joxe nga ah di nga am jàmm moo tax mu ne idaat yi nekkete moom idée bi ko tiital xam nga waajooj borom boutique boobu bu tëddee itam bu veyu veyu rendez-vous ba ci banque ba bu tëddee dina nelaw Seydi Hajj Maalik nee na looloo ko dal mooy sànq gi mu sànq rë Somalie capitalu alal ji mu yoroon muy dundam ndax dund moo gën a cher cinq million yooyu ma tudd fuuf sax wal bidaat yi moo gën a cher itam marchandise bi mu defoon ci boutique bi te waqat axaalu foogoon naa ne bi anna dayfa gan gi sax munfaridun kenn la wa annahu laysa min ahlil iqaamaati foogoon naa ne gan googu jox loolu te muy bijaaw yi ak longévité bi ak idée yu yooyu noonu nga xam ne wax nañ ma ne sànq sama dund man dama fa day ñëw yendu rek dem ñibbi ndeke euh, bijaaw dina de dina yendu bi <laughs> bijaaw du yendu bijaaw bu xasee ñëw demal ñuulali boo ñuulalee dina may ay fan nga jekkee ki mu ñëwaat te buy ñëw na muy mel sax mooy gën a ñaaw fuuf nu njëkk la moo tax mu ne foogoon naa ne daf fiy yendu rek moom gan gi jox ma idée boobu ak tiitaange googu ak euh, weexuk bi jaaw bi waaye ndekete yoo wa annahu nekk moom laysa min ahlil iqamati ne du fi toog waaye wa qaala li bada badana jaysun sa yalxaquna wala su usafu awsaafa intiqalaati mu ne ma non seulement man gan gi dew ma mais man dafa am ñu ma àndal maanaam man raid idla dama jiitu rek gaa yi ma war a àndal mais armée armée nañu armée bu mag a mag a mag lañu te ci yow lañ jëm bu ñëwee dal sa kaw wa lii mu ne ma dana sama gannaaw am na fa jayshun benn armée sayal xaqu naa dinañ ñëw léegi wala su uusafu nga ne ko mais décriral ma armée bi combien de personnes lañ mu ne non wala su uusafu mënuma melal aw saafan tiqaalaati melokaanu seen déplacement ndax ni ñu bare mooy malaaka yi yi ak malakal mawti ñu ngi ci yoon wi di ñëw boo bu jotee ceew foo jëm ba mel ya waaw da ngay topp nag soxdaa mi rek tey mu weex suba mu ñuul te muy adduna bi projet boo am tey ne noonoo grawul bàyyil ba bala maa bala maa tëju pour jaamu sama borom wala bala maa pour jaamu sama borom wala bala maa tub no bàyyil bu ma amee lii def lii bu ma amee lii def lii bu ma yeggee fii doo fa yegg xamoo armée bee ngi ñëw naajaaniya fu gan gi déeyaat ma muy bi jaaw bi sirran secrètement nag ne ma entre nous id yunaasixu nii ne daf may dafay partager ak man daf may labiré conseil gratuit la may jox sama bijaaw mu ngi wax ak man ak idée bi ne ma bi an usarrifu afkaaral xuturaat yi naa arrêté idée yu sangl yi nga xam ne maa ngi koy doxal maanaam eh, kii ma nekkal muy ndaw si bëgguma soppuma ma lu ma wax jóge ci nangam nangam te moom gan gi ñëw na fas yéene la dellu euh, te itam ñi nekk ci gannaawam bu ñëwee dinañ ma yóbbu moom nag moom ma jofal daal conseil gratuit xam naa gan googu ku baax la koon conseil gratuit mooy comme yow ñii ñëw dinañ ñëw te ndaw si àndul ak yow jubboow leen est-ce que gënul woon gënul woon vraiment nga bàyyi ndaw si te jox sa borom yàlla subhanahu wa taala lii moo tudde taxallus maanaam génn na nag ci cadre boobu dellu na joxal sa bopp euh, sa borom bi nga xam ne nii ëllëg lu mu metti metti moom dana la defendre te kii lum la wax génn ci ilal lazi demal ci ki nga xam ne kaana yurdillaaha mu mu nga ne ko mais sa borom sama borom fan la ne dafa inaccessible mu ne ah comme comme dafa inaccessible léegi kon kaay moo wax la première serviteur am nga dem fa kooku boo demee këram rek mel na ni yaa ngi kër yàlla ndax kontaan loo na yàlla ba presque mooy représentant yàlla mu ne ko nan la tudda mu ne ko dinaa la wax turam léegi ila alladi kaa ñu dem ci ki nga xam ne kaana yurdillaaha gërëm loo na yàlla min amalin ci ay waxam kooku melul ni soxdaade li yaqtafi ngir nga roy sunnatal samxi sa jiyaati yoonam yi nga xam ne ni yoon wu rafet la te jub te xoccooral dina la yóbbu ba ci yàlla huwal munasixu moom mooy mooy moo lay ki conseil conseil yi gën a wér te maa fi nusxihi nekkul ci ay conseil am tuhamun ay tuuma nga naan dalay nax wala yu mel noonu melul ni ñi la doon yedd ci bëgg gi nga bëgg bëgg soxda mais melul ni itam soxda ci ay worom yaa layta yaa laytahu jaa ana qabla alxasaaraati nee na ci saa si rek ma ne oh yow lii kay yow yow waroon nga teel a ñëw xam nga moom ndekete gan gi waroon na teel a ñëw ndax kii li mu ko taxaw ba mu bijjaaw tey at yooyu yëpp bu teeloon a gis gan gi gan gi dina ko recadrer waaye gis nga bijjaaw balaa ñëw day fekk sa dunda la ci ëpp solo passé moo tax bijjaaw toujours ba ma naan ah man bijjaaw naa léegi ah war naa xoolaat sama bopp fekke na la nga doon xool moom dem na moom xanaa dabaatal lañ war mën a wax moo tax mu ne yaa laytahu ak neexoon jaa ana dikkal ñu xablal xasaaraati avant may perte njaay mi avant may perte sama sama capital ak a neexoon kii ñëw waaye arju man Seydil Hadj Malick maa ngi yaakaar talaafiya rabbi sama dabaataluk borom te moom la waxoon ci fala budda walakin na ni arju talaafiya rabbina wa illaa fa habni haalikan ay yahulkat maa ngi yaakaar sama dabaataluk borom bil mukallami ci kooku mu doon wax loo mu doon waxandool maanaam interlocuteur am par excellence fii min masrahu ci ak riñaanam moom jóge na ci wax jële moom lan moo xamal ne ki ñu ki koy orienté moom dem na dem na isra wal ba yàlla wax ak moom eh, xayrul wasilaat yi moo gën nag ci wasila yi man xam naa du ma perte ndax temps bi ma ndaw si tardel bu ma demee foofu danaa ko rabat danaa ko eh, dogale mu mel ni nag boobu ba tey mu ngi wax fan jëm fan la jëm fi mu jëmoon nag dëgg-dëgg ci lay soog a ñëw dëgg-dëgg ci turwi mu tolloog li mu wax ci nuun ya mataama daana baxruki min kudurin fa saalin fa saafin salsalun baxrul amini nabiyun abqariyun aryaxiyun du xuluqin bayuni huwa al irniinu irniinu lbaraya safiyu sabixu lwajhi du xuluqin xasini maniinun yowma zu maniinun yawma zu ujbin maniinun manuunun gayra zi manuni manuuni euh, gis nga euh, loolu mu def taxallus moom la ñëwaat fii ne ki ki muy dem ci moom pour mucc muhammad la tudd sallallahu alayhi wa kan mooy muhammad mu ne xayru mabuusin mooy ki yàlla maanaam ki gën ci yàlla ñi yàlla yónni xawaate laqa sharafan terangay àdduna ak alaxira kuy muhammad mu ne babul ilaahi mooy buntub yàlla bi li maadil xalq ci ñi jiitu ci mbindeef yi wal aati ak ñiy ñëw ñëpp képp ku yàlla bind eh, kuy ku ku jëkk ak ku mujje yont yàlla muhammad mooy sa sang léegi xoolal ki mu njëkkoon di way ci xasal bi ak ki muy mujje way ni muy sore mu ne waman araada du xuulan képp ku bëgg a dugg anhu ci yàlla inna eh, maanaam waman araada képp ku bëgg a du xuulan dugg ci buntu yàlla anhu bëgg fa bàyyi yonent bi inna lahu non seulement doo dugg waaye di nga am tardan ak dàq dañ lay dàq euh, wa sorfan dañ lay delloo dañ lay ëlbati ila stablil bahimaati ci tabaarakallahu fa bàyyi may di nekk bàyyi may fii ñuy nekk moom ngeen di wax lan curiba curiba curi curi curi fas ya xam nga ne kilifa gu sol yére yu rafet ñu yóbbu la ci curiba ba curi fas ya xam nga fa fañ la yóbbu baaxul de curibakat du fenn fu dul safara ndax yonent bi képp koo xam ne wan nga ko gannaaw safara nga jëm yàlla ñu ci yàlla musal mooy ndawul yàlla ladi bi nga xam ne amat matale na risalatuhu ak yonentam kullal anaami ci mbindeef yépp moom moo wax ne yàlla moo nekk wama arsalnaaka illa rahmatan lil alamin bila shakkin ci lu sikk sàkk waray baati amul sikk maanaam sikk wallahu yàlla shaqalahu daf ko xaral minismihi ci turam karaman ci teddaange isman turam xal xassahu jagleel na ko xayral mahabbaat yi ji may eh, ngën ji cofeel yépp gis nga yàlla xam nga moo tudd wa shuqalahu min ismihi li yujillahu fa dul arshi mahmudun wa hada muhammadu yàlla dafa bokk ci ay turam mahmud mahmud nag boo dindee waaw bi waaw ba fa rek waaw bi nga xam moo taxaw waaxidu gis nga mu muhammad moo fay des moom la sëñ Babacar Si wax radiallahu anhu ci baxru bi euh, ne dumal karimu la hus man lil karimu la lil karimi la karimu karimul asli miata gis nga euh, moom man mooy ki nga xam ne ismuhu turam sawara rahmaanu yàlla ci la bindal xaaliqanaa suuratinaa suñuy melokaan ci bindu yonent bi la yàlla bindee suñu jëmm yi moo tax fa xawaa làq na moom yonent bi kulal karamaat yi bépp teraange àdduna ak alaxira téere yi wax nañ ne nit bu tooñee yàlla ba war a dem safara jëmmam ji ñu ko xamee woon ci biir ndakaaru ak Thiès ak Kaolack yaa ngi ci yàlla musal boobu du dugg safara dañ koy soppi jëmm mbaam xuux wala mbaam sëf parce que nit jëmmam dafa tedd nit koo gis muy dox bu ne gëmul muhammad sallallahu alayhi ay ree lay def yàlla ci waxin ndax moom jëmmam muhammad la miim gi mooy bopp bi <clears throat> loxo bi mooy xaa xaadam dellu gi gis nga bu jalee ñaari loxo yi def ko nii rek euh, tampale ko dafay ame melokaanu xaa biir bi ci boppam mooy miim gi gis nga ni mu ñaari tànk yi mooy dell moo tax nit bu tooñee yàlla ba war a dem safara du dugge jëmmu muhammad bii ñu ko bindee mais dañ koy soppiwaat moo tax mu ne waaw koo xam ne yow ci sa tur la yàlla amale euh, design yi nu nit ci la bindee tabaarakallahu nit ñëpp loolu xam nga doy na may nit koo gis muy dox bu la ko bu ko xamee bu ko xamul muhammad la lillahi wala boog wa yasjudu lillahi awaman yonent bi daan sujjóot na ay ati ati at te wa ma akwaanu yàlla bindagul kenn nuuruka yaa muti xam xasisaati yow mi nga xam ne nii yàlla mu ngi binde nit ñëpp ci sa leer te yàlla di la jox tabarakallahu teraanga àdduna ak alaxira li yàlla def ci yow kenn du ko dab xoolal lii rek salli ala sajidin qabla al faala bi sab'i miati aamin rabbi yallaahu moom la sëriñ bi wax fii waaw koo xam ne yow bi ngay gën nit ñi kenn bindagula la yow bés bu la bindee ba pare te toogoo yaa ngi continuer di jaamu yàlla nooy def xanaa gën a gën ñëpp sallallahu alayhi wa mu ne wa kaana man kaana izhaaran li fadlika yaa xayra diyaanaati yaa kashfal gumumaati compétition mënta am sa diggante yow yonent bi ak benn yonent wala kenn compétition mënul am xam nga lu sax faf ñi yàlla bind ñu ko bind ngir yow yow lañ bëggoon satisfaire ni ngay demee ci boutique bi jëndal sa doom ay bonbon ak ay chips jox ko ko loo bëgg pour kontaan loo ko yow foofu mbindeef yi nga war a probablement ñi nga war a defal compétition bi ak ñoom ñoom ñu ngi leen amale ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne wakkaana am na man kaana képp ku am izhaaran ngir feeñal rek li fadlika ci sa ngëneel yaa nasra diyaanaati yow e, ndimbalu diine yu jëkk ya yaa kashfal gumumaati yow mi nga xam ne nii yaay wuññi tabaarakallahu njàqarey jaam yëpp euh, yal na yàlla fayal ñu yonte yàlla muhammad bi mahdi fadli wa juudi hada huwa tawfiq wassalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakatu